suñu réew bi fi mu toll ñun amuñu li ñu bëgg ci walu xar loo xam ne moo mën a satisfaire suñu marché kon di dañuy obligé parfois di jéggaani di jëli ay jur feneen pour combler le gap bi nga xam ne am nañ au niveau national loolu nag c'est une solution je dirais pas à moyen terme mais court terme parce que nag gëm nañ ne tout de suite mënuñoo tëb tëb rek li ñu soxla lépp ci xar ñu mën ko am mais ñaan nañu yëpp bokk na ci suñuy programme bokk na ci instruction yi ñu président de la république jox mooy ñu fexe ba xar yi nga xam ne ñoo ngi koy utiliser fii ci suñu réew too ko xaymaa mu ngi toll sept soixante milliards ba soixante dix milliards ci benn bés alal boobu des fii xar yooyu ñu mën ko produire fii waaye loolu nag processus bu gudd la laaj stratégie yu am solo la laaj et ci loolu déjà président de la République ren daf ne période Covid 19 la ñu nekk période bu jafé la période bu metti la nak la ñuy def pour les Sénégalais yi pour ñu mëna des am xar bokk na ci mu jël luy tolok 6 milliards 3 milliards mu né nañ ko accompagner éleveurs yi ngir seen coono bi nga xamné ñu ngi koy am mais ñu mën ci dundal ñu mëna am ay xar de qualité 3 milliards yenen mu jël ko jox ñi nga ñoom ñooy jëndi xar di jaay xar parce que damay faral di naan état rôle am ci liggéey bi rôle facilitateur la état jëndul xar état jaayul moo tax aussi mënul wax ci prix mënul wax ci qualité mais li mu man ba man mooy dina def kéemtulaay kattanam pour sensibiliser ñi nga xam ne ñooy jëndi ñu xam qualité yi mu indi mais aussi ñu am yërmande par rapport ak ñi ñuy jaay période bi ñu nekk période bu jafe la kenn ku ne xam na kon il faut que kenn ku ne mu xam ne ni yërmaande dafa war a am ci li nga xam ne dañ koy def am na yu ñu soulever fi tout à l'heure ci wàllug ñi nga xam ne ñooy ñëw fii loolu waxtaan nag ak monsieur maire mu ngi jël ay dispositions yu am solo pour loolu moonu mu bañ a amati donc mënuñu lu dul rafetlu li nga xam ne fekk nañ ko fi benn daaw à J moins région bi so limone limbi mu ngi 18 000 têtes Rennes même période c'est-à-dire à J-11 de la Tabaski ñoo ngi tollu 28 000 têtes lo so défé différence bi man naan luy 10 000 têtes yokku na ci lolu nonu nak dañu né fu yalla défé mu maintenirou moy tendance bi descendi non ba veille Tabaski am nañ ak yaqin que réew région bi dina am un bon approvisionnement kon mënuñu lu sante yalla ci lolu et ñaan yalla tendance yi continuer